bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakim allahumma ya rabbi callimna maa yanfacuna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 mu doon audience bu njëkk bu ñu am ak suñu borom tabaraka wa taala saa'iliina mawla jalla wa ala an yataqabbala minna wa minkum saalihul amal yal nañu yàlla boole nangul lañu jëf si jëf ji mu doon amalan maqbulan inda allah buur yàlla nangul ñu ko fa moom mu doon audience bu njëkk bu ñu am ak suñu borom yal nañu ko yàlla nangul bu ko tamit yal na ko fulandi fa moom mën na ko sañ na ko am na ko yal nañu ko yàlla defal amin ya rabbal alamin mbokk yi Rewmi FM 97.5 waxtaanu fajar bay jaar fii ci daara ji ci waxtu wi tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci beneen buntu ko defee ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal ko yàlla yombalal yal nañu ko yàlla kattanal ñu defee ko comme nañ ko bëggee amin ya rabbal alamin buur yàlla tabaraka wa taala si dégg ak topp xam ngeen ne keroog buñ doon taxawandek yen ci waxtaan bañ doon waxtaan ak euh, mbokk yi bokk na ci la nga xamante ne mooy la borom xam-xam su mag doon joxe comme nasiha mu nekk xasanul basri rahimahullah ak abdullahi bun awn rahimahullah ak alaamatu said rahimahullah ñoom ñëpp bokk nañ ci lañ doon partager ak askanu jullit ngir jullit bi mën a defar togginaam si pénc ba muy nekk di dund mu nekk euh, anam bi nga xamante ne amaana bu ko boromam kattanale ba mu war a mën a tënk boppam ci loolu mu dégg ci ay conseil ay nasiha ye ko boroom xam-xam yi nasiha amaana du ñàkk euh, mu doon ku mucc ayib ci dund ba muy dund ndax euh, njëlbeenu nasiha njëlbeenu conseil ba ka Xasanul Basri conseil mooy yow doomu aadama bi na nga xam ne bés yàlla fi tax a mooy ay bés yay ñëw di jaar di jàll ba tax na da nga war a bàyyi sa xel ne bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na bés ba dañ ci sa dund bi ba tax na képp kuy dundee nii képp kuy bàyyi xel yàlla anam bi ni mel amaana du ñàkk nga nekk koo xamante ne di doon ku dundam doon mucc ayib moo tax mu ne la ibnu aadama innama anta ayyamun kullama dahaba yowmuk dahaba baaduk yow doomu aadama bi de bàyyi xel ne bés yalla fi tax a bàyyi mooy bés yi nga xamante ne mooy bés bi nga xamante ne mooy euh, bés ya ngay dund ba tax na bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne am na bés ba dindi ci sa dundin am na bés bi nga absenté wu am na bés bi nga xamante ne photo na la filmé na la yóbbu na sa image fa nga xamante ne dañ la ko fay dencal ëllëg bés pénc boo ñëwee ñu daal di la ko jox ba tax na lu fi jar ngay wili pande sekere nit ñi wala ngay xeeb nit ñi walla ngay déformer di di disorienté kàddu ba nit ki wax jëmmale ko fi nga xamante ne mooy fu ko soob yow nga jël ko jëmale ko feneen fu wuuteeg boroom kàddu gi fum ko jëmale ngir xarale yu bees yi ni ñu mel su ko defee xamal ne keroog bés pénc buñ la fayee sa jëf ya nga doon jëf ah bu dee lu baax la di kontaan waaye bu dee safaanu lu baax la da nga doon ci ñu pert moo tax bur yàlla mu di ñu jox avertissement ci alquran ci ay saar yu fasante ko waaye ci ay aaya yu fasante ko ndax doy na rek ci tegtal ñu tegtaloo ci aya ba nekk ci suratul zilzila bur yàlla ne ñu fa man yaamal mithqala zarratin charran yara képp ku jëf jëf ju tuuti toll ni atom di pepp suuf bu dee yiw la dinañ la ko fay waaye képp ku def safaan bi tamit numu tuuti tuuti tuuti charron yara bu dee lu ñaaw la dinañ la ko fay ba tax na yow jullit bi sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul dara la ko yàlla xamal ci lu baax lu dut won nañ ñu ko waaw ta nawet nit yaa ngi focaliser wu ci béy bi autosuffisance la riz xaw ma soxna mari nii lañ koy waxee de waaw autosuffisance autosuffisance de la riz waaw doylu ci dund bi naam baax na waaye ndox bi tamit buy wàcc am na yonent bi lu la wax ne loolu doy koy tudd su ko defee ngay épargnel sa bopp ay yiw ci say jif keroog ci sa xasanaat waaw keroog ba ñuy peser say jëf ñu ne moom de daanoon na topp tegtal ba ko yonent bi joxoñal ci anam bi nga xamante ne bu ndox taw doon wàcc noolu la doon wax mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa baaxe xeet bi ne ñu buy taw ngalawaay na ngeen tudd yàlla yàlla sëmbëxtar leen taw joo xamante ne day doon taw barkeel ndax jamono bu ndoxu taw bi di suub yàlla day ubbi buntu ñaan buntu nangu ñaan yàlla da koy tijji mu xamal ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam bi xamal ko xeet bi ba tax na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na buy taw yow jullit bi nanga tudd yàlla na nga ne allahumma sayyiban naafian yàlla nga ñu suubal yàlla nga ñu tawal yàlla nga ñu sëmbëxtaral taw bu ànd njariñ yàlla ñu lay ñaan taw bii di suub nii taw bii di taw nii taw ba nga ñu wàccel nii yal na doon ndoxum ndox bu ànd ak njariñ yal na doon taw bu ànd njariñ yal na ànd taw bu ànd barke béykat bi na ci njariñu yàlla bu mu doon taw buy lore waaye dëkk joo xamante ne buy taw inondation moom la ñuy gën a wili pande ci média yeeg télé yeeg rajo yi ak a néew jël sa micro trottoir ne yonent bi nee na buy taw julli bi dafa war a ñaan ban ñaan est-ce que ñi lay tontu dina ëpp li mu fukki baaraam ya nekk ci sa loxo waaw tontu bi kenn ku nekk na ko xool te moone ñu ngi gëstu leneen ñu ngi gëstu leneen la ma Ali Ali Jaxate Kër Massar ñu ngi lay nuyoo macha allah lañu doon waxtaan nee na daal fu ne nii lenn si jullit ñi daal bokk na ci seen jikko bu fekkente ne dafa am leneen di dàqee te ñu yore bagage yu bari mu diisal leen amaana bépp bagage luy bagage yu diine moom la ñuy sànni ngir ñu mën a woyof ngir ñu mën a wéyale seeni daw waaw daw ba ñuy daw pour rëcc lépp luy bagaasu diine dañ koy rompot di ko sànni defe ne loolu mooy laleen di diisal tellement diine islam bi daal euh, est-ce que téye nañ ko fukki loxo ak ñaar est-ce que téyewuñu ko ak suñu cati baaraam yi bu ñu bu ñu gisul lu ñu xam ñu daal di ko tegandi ñu ne ko yow daal dang ñuy diisal xoolal ñaan bi nu mu amee solo nu mu amee barke te mu doon ñaan ju gàtt boo xamante ne wax ko jarut nooy ñetti baat la waaw ñetti baat la allahumma buur yàlla sa yéban lay ñaan na doon taw naafian bu am njariñ allahumma buur yàlla sa yiban taw bii di taw nii na doon naafian na doon taw bu am njariñ allahumma sayyiban naafian allahumma sayyiban an yow mi ñuy déglu jëlal sa big ak sa fëy nga bind ñaar ñetti phrase yi buy taw nga di ko wax ñu di la bindal yiw ci say téere jëf ju baax te yàlla bu nangoo sa ñaan amaana taw ndoxu taw boobu di sóob ci jamono jooju mu doon ndoxu taw bu am njariñ ñeel ña koy jëfandikoo mu bañ a doon ndaxu ndoxu taw bay inondé bay law di dugg ci këru nit ñi yàlla dafa bugg saa su ne buy wone màndargaay jëfam ci doomu aadama yi ñu bañ a doon sëlmaxa ci màndargay yàlla yàlla dafa bëgg toujours doomu aadama bi di reconnaître màndargaayam ndax seytaane moo lay occupé lu ci ay lu éphémère ba doo xàmmee kawteefu yàlla ci dara yow daal gane nga àddina fekk nga fi gaay ñuy def damay def gane nga àddina fekk nga gaay ñu di wax damay wax gane nga àddina fekk nga gay ñu mel ni dina mel nii amaana fekk nga leen ci leneen lu nga xamante ni wuute nag sa bëgg-bëgg mais fekk loolu leen ci loolee mais mbiru na daal waaw fii laa ñëw fekk gaay ñi di ko defee nii nii laa koy defee fekk naa gay di ko waxee nii nii laa koy waxee gëstu jàng déedéet laajte déedéet bekkañ nga xañ sa bopp yiw yu mel nii xoolal ñaan bi nu mu gàtte allahumma fi naafian jëlal sa big ak fuy nga topp ñu si réew mi fm 97.5 wala nga dugg suñu plateforme ngi déglu waxtaan yi fi jaar su ko defee ñu bokk ànd ak yéen njëriñu li nga xamante ne moom la ñuy fàttalante ak mbokk yi yal nañu yàlla muy dégg ak topp ñaan bi dafa gàtt yonent bi nee na buy taw yow julit bi na nga wax allahumma sayyiban naafian allahumma sayyiban naafian allahumma sayyiban naafian yan na ko yàlla def taw bu am njariñ yan na ko yàlla def taw bu am barke yàlla bu mu doon taw bu ñuy lor su ko defee yàlla moomaa jooju ubbi na buntu nangu ñaan su ko defee mu doon bu dee yàlla nangu na sa ñaan béykat bi dina ci am njëriñ waaye nag du doon taw bay inondé ba nit ñi di si loro nii lañuy ñuy déggee sansu ñaan bi bi léegi yonent bi sallallahu alayhi nee na buy taw waaw ñu ñaan ñaan boobu bu tawee ba sebet tamit am na leneen lu ñu war a wax jamono yi taw ngi épargnel sa bopp ñaari yiw nga xamante ne dañ la koy épargnel ci sa téere yi jëf ndax yaa ko liggéey yaa ko tudd yaa ko nekkee yow jullit bi kon Euh, moment nawet bi nawet bu mu dugg ba jeex te duñu xam njëriñ yi yëpp ay faida la yoo xamante ne yàlla borom bi tabaraka wa taala moo ko xamal yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax na yonent bi nee na bu tawee ba sebet nañu wax ne mu bi fadlillahi wa rahmatihi mutirna bi ah, de tawal nañu ci ngëneelam ak ci yërmandeem yàlla tawal nañu ci ngéneelam ndax ndoxu taw ngéneel ba tukkee ko fa yàlla la waaw ndoxu taw bokkut ak ndoxu robine ndoxu taw bokkut ak ndoxu teen ndoxu taw bokkut takk Euh, ndoxu Evian ya ñuy xaatar xaatar di ko jënd eh, diw sangam de moom du naan ndoxu robine moom ndoxu ndoxu ndoxu Evian lay naan waaw diw sangam de moom du naan ndoxu taw bu dee suñu dikk kaw yi la waaw ah, boo demee côté Casamance macha allah suñu suñu suñu suñu gars di jóge ko bitim réew yàlla yërëm bu ñu ñëwee nag seen butéelu Evian la ñuy yoree voilà moom la ñuy doxantoo waaw or ko taw moo gën a barkel moo gën a barkel. leneen lu dut moom waaw ah, wa anzalna min as-samaa'i maa'an mubaarakan la yàlla wa may wàccee ci kaw asamaan si ndox nga xamante ne dafa am barke allahu akbar ndox boobu mooy ñu meññal dugub ba ñuy jëfandikoo jaxate ku ndey nag am ci ak saane ku ndey ñoom ñu am ci walla joo xamante ne ah ñun de dañ ciy mostuuti rek waaw ñun moom dañ ciy mostuuti tuuti yal na leen yàlla yërëm ah, ak tuure ku ndey ñoom dañoo bëgg gerte bëggu dugub bëggu mboq waaw ndoxu taw boobu yàlla di wàcce ñoom ndoxu taw boobu loolu lay meññal moo tax mu ne wa anzalna may wàccee ñooy wàccee mina samaa'i jóge ko ci kaw maa an ndox woo xamante ne mubaarakan mooy ndox bu am barke mooy ndoxu taw kon yonent bi sallallahu alayhi nee na yow jullit bi bu di yàlla tawal na la na ne mu mutir naa aw oh, tawal nañu bi yi ci ngéneelam tawal nañu bi yi ci ngéneel ba nekk fa moom yàlla mu wàccel ñu ndox bu bari ngéneel wa yi ak yërmandem waaw tawal nañu ci ngéneelam ak ci yërmandem ku dul moom yàlla anakan moo ñu war a mën a wàccal ndox ba am ngéneel bu mel nii la muy liggéey ana kan moo ñu war a mën a meññal meññeef bi nga xamante ni dafa fees dell ak yërmande waaw ah, ndoxu taw lépp lu mu meññal loolu microscope microscope amul soxna mari bu dee baat bi du nii nañu defaraat baat bi bu dee noonu la taalibe nasaraan bi ñu ngi jéggalu waaw lépp loo xamante ne ndoxu taw da koy meññal microscope mënu ci am dara lum ci war a wax loo xamante ne inconvénient layu doon léppay doon impec ndax meññeef boobu buur yàlla moo koy togg moo koy créer moo koy defar ndax moo xam la baax ci yaramu doomu aadama ba tax na daal euh, waa nguur gi ñu ngi ñaax ñëpp ñu dem ci bay agricole bi nga xamante ne mooy lay créer autosuffisance la rue su ko defee ñun ñëpp ñu bokk ci ña ko yàlla wërsëgal man loo ko nañ ci nekk ndax liñ ci liñ ci liñ ci góobee ci askan bi lay delsi su ko defee ñuy dundee lu ñu béy waaye béy tamit la ñuy dundee yan nañu ko yàlla barken yan nañu ko yàlla man loo su ko defee mu doon xéewal woo xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala moo ñu ko wërsëgal mu wàccel ñu ko mu jógee ko ci asamaan si mu doon xéewal bi nga xamante ne keneen ko yàlla mënooñu ko wàccel ndax yoroo ko xamoo ko mënoo ko fik àddina di tukki doo ko mun a masa def te doo ko man kon buur yàlla mi ko man nañ leen ko ñaan jamono bu muy taw comme na ko yonentu bi tegtalee nañ ko ne sëy allahumma sayyiban naafian yan na ko yàlla def nawet bu am njëriñ lool waaw yan ko yàlla def nawet bu am njëriñ lool waaw yan na ko yàlla def nawet bu am njëriñ lool allahumma sayyiban naafian ndax buy taw buur yàlla day ubbi buntu nangu ñaan ba tax na képp ku ñaan yàlla dina la ko nangul waaye ñaan bii nag moom lañu ñu gën a soxla ci jamono bu muy taw ñu naan allahumma sayyiban naafian waaye noonu la ñuy demee ñu xool keroog bu mu tawee ba sebet ñu ne mutirna bi fadlihi wa rahmatihi waaw yàlla de tawal nañu ci ngéneelam waaw ndox bu ñu wàccee nii ngéneel ba nekk fa moom la mu baaxee ko waaye lépp lu ndox bi di meññ di ko ñoral ci yërmandem lay nekkee kon ñu ngi naan yàlla yow mi ñu tawal ci sa ngéneel yàlla nga ñu jox yërmande bu toll ni mooy la ndox bi di ñoral ci meññeef ya baykat yi di bay yal na ko yàlla barkeel yal nañu yàlla may mm, nawetum naataange nawetum jàmm amin ya rabbal ndax saa su ne comme niñ leen ko waxee buur yàlla daa sopp saa su ne doomu aadama bi di reconnaître xéewal yam koy xéewalal ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy baaxee ci maana xadis tudd yàlla nu mu amee solo rawatina jullit bi nga xamante ne moo ko lamboo comme lañ leen wax ni ci ginnaaw xëytu tudd yàlla la xëytu fàttaliku yàlla la ci xëywal yum la yenkewal yow doomu aadama bi rawatina yow julit bi ba tax na yonent bi nee nañu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kalimataani xafifataani ala lisaani thaqilataani fi lmizan subhaanallahi alazim yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñaari baat yaa ngi ni woyof toll ci làmmiñ waaw waaye diis gënn ci peesukaayu jëfu doomu aadama ëllëg bés pénc waaye ñaari baat yi ñu doon baat ya yàlla sopp fa moom mooy subhaanallahi wa bihamdihi wa subhaanallahi alazim mbokk yi na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot jullit bi dafa war a nekk saa su ne muy dëkkee di tuddu buur bi yàlla tabaraka ci xéwal ya ko yàlla xéwalal yonent moo tax mu ne ñu ñaari baat yaa ngi ni kalimataane ñaari baat yaa ngi nii xafiifataani dañoo woyof toll alal lisaani ci làmmiñ thaqilataani dañoo diis gënn fil misaan ci peesokaayu jëfu doomu aadama keroog bés pénc habibataani ila rahman ñaari baat yi ah yàlla sopp lool fa moom ñaari baat yooyu mooy subhaanallahi al adim waaw set ak cellaa nge ñeel nañ yàlla buur bu màgg bi subhaanallahi wa bihamdihi set ak cellaa nge ñeel nañu yàlla ak mboolem cant yu kawe boo demee sahih buxaari di nga fekk hadis bi mu nekk foofu kon ñaari baat yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dañoo woyof toll ci làmmiñ waaw mais dañoo dis gann poids bu diis gann la yore ci misaan ci peesukaayu jëfu doomu aadama lig bis penc waaye nag ah dañoo am place bu kawe yàlla da leen sopp lool fa moom ñaari baat yooyu mooy subhaanallahi wa bi wala subhaanallahi alazim waaw ci teg ci laa nge ñel ñenu yàlla buur bu màgg bi si teg ci laa nge yàlla buur bu yeyoo mboolem xeetu cant yu kawe kon ñaari baat yi képp ku ko sàlloo nga di ko dëkkee di ko tudd di ko fàttali sa bopp di ko tuddu ah xamal ne ëllëg keroog bés pénc boo dikkee dañ ne est-ce que moom dafa bokkoon ci ñuy tudd yàlla ñu ne waaw waaw ah kii de dafa bokk min adh-dhakirina kii dafa bokkoon ci ñay tudd yàlla ci lu gën a bëri waaw ñu ne kii de na ci la yonent bi joxoñ tegtal ko baat yaa ngi nii am na ñaari muu am na ñaari kàddu yi nga xamante ne dañoo toll ci làmmiñ moom de daana na ko doon tudd lool ñu ne ñaari baat yooyu mooy ñaari yan ñaari baat ñu dem xool ko macha allah ñu gis fa ndekete waa ji da doon tudd lu gën a bëri subhaanallah wa bihamdihi subhaanallah al azim jël sa baaraam nga naan subhaanallah wa bihamdihi subhaanallah wa subhaanallahi al azim allahu akbar ngay tudd baat bi di ko tudd di tudd di ko tudd plusieurs fois di ko tudd saa su ne mooy seteg ci laa ngay ñel ñenu yàlla buur bi nga xamante ne moo gën a màgg lépp li fi ne waaye seteg ci laa ngay ñel ñenu yàlla buur bi nga xamante ne mboolem xeetu canti yu kawe yu mattale ñeel ñenu yàlla lii képp ku ko dëkkee di ko tudd be keroog nga taxale koog dundu àddina wallahi sa gannaaw bandang waaw yow mun nañoo rafet njort ci sa mbir waaw ndax yonent bi moone ne diis gën ci peesukaayu jëfu doomu aadama keroog bés waaye képp ku ñëw keroog bés penc nga dikkaale andiwaale la nga xamante ne day diisal sa balansu peesukaayu jëf keroog bés penc ah ah yow wan nañoo am yaakaar bu mag ci say mbir waaw wan nañoo am yaakaar bu mag ci say mbir ndax am na loo xamante ne buñ la ko doon yenuloo kan nga koy war a mën a yenu ba keroog nga dab ngir mànde yàlla ji tax sa peesukaayu jëfu doomu aadama muy diis xamuloo ko kon yonent bi bu la ko bu la ko bu la ko baaxee bu dee yonentu bi moo la ko moo la ko yenkeewal waxtaanal la ko jox la ko ah kon war ngaa war a mën a war ngaa war a mën a xar sa tànku tubéy takk sa ndigg war a jëf la nga xamante ne mooy jëfandikukaay bi toll ni langa nga xamante ne mooy euh, baat bi nga xamante ne <clears throat> moom lañ la tuddal nii subhaanallahu wa hamdihi wa subhaanallahi al azim te buñ ko doon xool dégg la baat bi yomb na lool woyof na toll ci làmmiñ waaw yomb na lool woyof na toll ci làmmiñ bu dee yàq la neex yàlla rekk kañ nga koy xam kañ nga koy jàng kañ la ko yàlla di xamal kon bu dee yàlla dafa am ku mu tànn ci jaamam yi am ku mu tànn ci askan bi mu yónni ko mu doon ar rasulul mustapha salawatu rabbi wa salaamuhu kooku dikk ne la ah, ñaari baati yaa ngi nii am na ñaari moo yu fi nekk yu woyof toll ci làmmiñ boo koy wax doo noy boo koy wax doo xiixat boo koy wax doo fi nekk di yëg coono waaye ñaari baat yi dañoo diis gën ci peesokaayu jëf doomu aadama keroog bés penc ñuy peese sa jëf yi ñuy peese di peese di peese ñu ne ah est-ce que moom jeexal na ñu ne waaw waaw jëfam yi jeex nañu de est-ce que moom bokkoon na ci ñuy tudd yàlla ñu ne waaw waaw bokkoon na ci ñuy tudd yàlla de moom ban turu yàlla la doon tudd ñu ne moom bokkoon na ci tegtal ba yonent bi tegtal ne kalimataani xafifataani ala lisaan saqilataani fi lmiizaan habibataani subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim ñaari baat yi woyof toll ci làmmiñ dis gënn ci peesokaayu jëfu doomu aadama keroog bis penc waaye ñaari baat yi yàlla sopp leen lool fa moom ñaari baat yi mooy subhaanallahi wa bihamdihi wa subhaanallahi al azim subhaanallahi wa bihamdihi wa subhaanallahi al azim mu doon ñaari baat yi nga xamante ne saa ko optee di ko tudd saa yoo ko waxee rek amal ne wàccal nañ la benn poids bu diis ci sa balansu peesukaayu jëfu doomu aadama keroog bés pénc nga épargnel sa bopp loo xamante ne keneen kudul sa bopp kenn du la ko épargnel kon ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina yastamiuuna al qawla fa yattabiuuna ahsana mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax ñuy jox xibaar lañu war a jébbal béréb bi su ko defee ñoom it ñu wéyal nasaluka allahumma an tarzukana lisaanan shakiran dhakiran allahumma ijcalna min alladina yazkuruna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruun allahumma inna nasaluka lisaanan shakiran dhakiran wa qalban xaashi'an allahuma inna nasaluka mujibati rahmatika wa gazaima magfiratik wa salaamata min kulli ismin wal ganimata min kulli bir wal fawza bil janna wa najata min annaar allahuma ya rabbi aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin allahumma inna nasaluka an taghfir lana ma qaddamna wa ma axarna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta aclamu bihi minna anta almuqaddim wa anta almuaxir laa ilaha illa anta faslih lana sha'nana kullah nasaluka allahumma an taghfir lana wa liwalidina wa lijamici almuminina walmuminat walmuslimina walmuslimaati l axyaa minhum wal amwaat waxfir li ixwaanina allazina sabaquuna bil iman wala tajcalu fi quluubina gillan lilladina aamanu rabbana innaka anta rauf rahim allahumma ya rabbi ixfir li mawtaana mawta almuslimin allahumma ixfir lahum warhamhum wa aafihum wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madxalahum wa gsilhum bilmaai walsalji walbarad